lu jiiti indépendance y avait la colonisation amoon nañ stade fédéral amoon nañ stade champ de course amoon nañ yeneen stade yoo xamante ne colon bi moo ko fi defoon mais depuis l'indépendance avec la loi cadre gouvernement successif yi fi jaar yëpp vraiment génn nañ seen waa boo xoolee ci temps yi Senghor presque capitale régional yëpp à l'exception de Fatick ak Kolda yi nga xam nekkaguñoon région yooyu yëpp amoon nañ stade bi Ablaye Wade di ñëwee aussi gis nga capital régional yëpp am nañ à l'exception de Kaffrine bi nga xamante ne bientôt ñu ministre Matar Ba posé première pierre bi ak sa stade régional de Sédhiou donc gouvernement yi fi ne yëpp bi ñu ñëwee ba léegi ñu ngi béy seen waar gis nga avec Abdou Diouf ci la stade de l'amitié ñëw avec la coopération chinoise à l'époque avec un investissement de pratiquement 9 milliards mais réellement politique infrastructure bi bi mu ñëwee dëgg-dëgg c'est avec l'arrivée du président Sall ay surtout avec la coïncidence de la nomination du ministre Matar Ba bi mu ñëwee ba léegi gis nga ne il a de la politique des infrastructures sportives sa sa priorité yu ñëwee ba léegi gis nga mu ngi inauguré ay infrastructures mu ngi réhabilité ay infrastructures il y a des projets qui sont en cours même dans les coins les plus reculés dans les communes rurales yëpp ci budget de 2020 bi di ñëw prévoir nañ ci ay programmes yu bëri ci construction stade et même budget 2020 bi y a pratiquement 20 milliards d'investissement en matière d'infrastructure sportive mosul am infrastructure yi ñu doon tabax yépp boo seetloo c'était dans le cadre de la coopération booy xool mais c'est la première fois depuis l'arrivée de Macky Sall ñuy inscrire budget investissement ci construction infrastructure bi mu ñëwee ba léegi gis nga après Léopold Senghor la deuxième plus grande infrastructure euh, mooy arène national c'est une vieille doléance boo xamante ne ça date de 1958 booy xool avec le premier gouvernement fédération du Mali ci lañ commencé woon di wax affaire yi arène nationale parce que les premiers combats de lutte mu ngi doon amee ci ci stade bi lutte avec frappe bien sûr bien que amoon na ay arènes par-ci des arènes privées mais toujours dañ xooloon ne day indi ay jafe-jafe parce que arène boo fi gis rek amoon na champion am ak ay supporters ba nga xam ne affaire yi da doon toj rek ci lañ am projet aussi de stade olympique bi war a am Diamniadio avec cinquante mille places surtout en prélude des Jeux olympiques de la jeunesse bi am en mille vingt deux donc sur le plan de la politique infrastructurelle je pense que ñu ngi def jéego yu rëy rëy rëy comme ren foog naa ne c'est tout bénéfice pour le Sénégal parce que ci ministère ba léegi depuis 2014 gis naa ne fédération yëpp la yemale parce que bu leen yemalewuloon comprendre nga di nga jéggi coow li comme ni mu doon amee mais déggatoo ko fen mais tout les fédérations son dégal dignité mais yemuñu doole c'est vrai yemuñu aussi liñ leen di jox jumtuwaay yi ñu leen di jox ça dépend ci taille fédération bi rek ak activité bi nu mu toll parce que mënoo comparer football ak roller football li mu mun a indi ci réew ak li mu mun a indi ci koom lee mënu ko indi pour ci soccer bi début bi loolu lañ doon wax mais tey dayo bu ñu am amuñ ko woon ñoom aussi noonu la ñu ngi woon ci CNP ñu ngi progressé ñu ngi ci fédération mais ëllëg dinañ am dayoo boo xam ne amuñ ko woon discipline yëpp noonu lay demee deux ministres et de la prérogative exclusive du chef de l'État mais ni mu fi yàggee dama yaakaar ne euh, résultat yi mu am la ak style de management yam parce que li ñuy wax rek ne on ne change pas une équipe qui gagne parce que bu fekkoon ne mu ci dynamique bi ci résultat yi ak performance yi nga tëb changé ko yaakaar naa day andi cassure kon résultat yi ñu am duñ ko am parce que le résultat c'est dans la durée et dans la constance te Matar il est vraiment constant dans ce qu'il fait vraiment bi mu ñëwee ba léegi gis nga le mouvement sportif affaire dafa stable parce que ku ne jox na la sa cër mais terewul lu mun a am danaan lii mun na am lu munta am danaan munta am ndax lii ak lii nit ñi déggal ko nangul ko moom tam aussi mu jox leen seen wàccuwaay ak si booy xool il a été dirigeant il a jiite woon na mouvement national des sports maanaam ONCAV jiite woon na ko donc am na expérience bi ba pare <laughs> jàngalekat la donc xam na doomu aadama xam na doomu aadama xam na sport ku mel noonu nag boo ko dënkee sport bi foog naa ne li mu ci am du la bett parce que muy nit ko oyof la aussi vraiment ku mun a déglu ku mun a bokk